waaw asalaamaaleykum nag mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu di gërëm gars yi yëpp di wax ni ren nekk anniversaire Mame Saye Ndiaye di le 16 janvier l'an 2014 fële ci Rabat ñu ngi woon ak gars yi yëpp sans oublier ñëpp daal kon dañuy ànd rek am na suñu benn reportage bu ñu defoon dem ba Touba jàkkaarloo ji bi ndongolo def reportage bi kon nañ ànd dem seet reportage ñëwaat ñaan boobu tamit képp fi ba nga dogaloo xam la ñu ngi joxe benn te pompe yi presque deux cent viré naan dañu ko bu ngeen fee fële ca rafet dañoo bëgg sant bi képp ku nekk sant képp képp sant nekk ku mel na Maguette commencé nañ ci ko waxee Maguette Diop waaw Maguette Diop nekk ba Maroc ku nekk daal ku nekk ci ba Louga ci ba bitim réew bàyyiwuñ kenn képp sant nekk daal su fekkee am nga possibilité bi ñëw pour teew ñëw rafet la seize nga def teew bi ñëw rafet la seize parce que jili na moo ngi nii doo bàyyi moo bi noonu parce que moom sax incha allah day jóge ba Touba def kër gi ñëw ci bi comme ci koy ngi koy jagleel képp kuy fan si ndongoloo keneen ku dul fan si ndongoloo tamit man boolewuma la. ndax ñun dañoo am suñu fan lu bëgg te ndongoloo jaral nañu loo xamante ni benn artiste jaral nañu doonu damay diingat dara taxul may wax ci xolum mbëggeel la ci laay waxee. ndax man maa ngi jiwoo ku ci mel ni jiili kan di jiwoo alaaji ndongo loo di jiwoo bëgg ndongo di noo koy waajal ak ñan ak ñan ngay woo daal maanaam bi man sama xalaat ak sama wax benn lañ du ma ne sori ndax maa ngi woo képp koo xamante ni fan si ndongo loo li ma waxoon sànq rek boole wu ci ku dul fan si ndongo loo ndax ñun ginnaaw dañoo bëgg nit mu dee ñu wëlbati ko topp ko mel ni koo xamante ni mu ngi ñu dee bëgg guddi ak bëccëg suba ak ngoon kon xam nga ñun li ñuy woote nekk na dëgg ci ñun. mais xanaa Zouba Zouba sa kër ay kaar kaar yu bëree bëri nga daje def mu départ ci. Euh, dëgg la su la rafet. waaw ñun jël naa la tolloog ñaari kaar. te ji di dëgg la. woon naa ji sama fan yëpp. dëgg sama fan su man waxuma fan su Ndongo Lo de. ñi nga xamante ni dañu maa bëgg ngir Ndongo Lo. ñi ngay ñëwaat. ak ñi nga xamante ne dama leen ñu ñëwal. ñëpp laa woo. yaa ñëw ko mag bi Touba de. ci anniversaire bi. dëgg la ñëpp bu ñëwul man dama yëgaloo ko rek ñu ñëwul man. Ba Ngom maa ngi jiwoo Alaaji Ndongo Lo di jiwoo Bëgg Ndongo di jiwoo Ousmane Ndongo Lo di jiwoo ki ñuy wax Jili Kan di jiwoo képp koo xamante ni yow sopp nga Ndongo Lo ak képp ku may bëgg di bëgg samay fan yéen ñëpp woo naa leen. non xam nga Jili Ndongo Lo borom baax la quoi parce que man su ma wax nag loolu parce que ki ma génne sama ma génne moom borom baax la quoi mais dañuy joxaat réseau ba xam réseau moom réseau mbaaw yi mu ne su ma génne waa jël ko teg suñu caméraman fii moom moo fa génnee mais dañuy joxaat kàddu gi réseau réseau bi wax waa koñam ñan ak ñan lay woo ak bu jour ba le 16 janvier l'an 2014 ñan ak ñan lay woo ak tamit ñaata kàddu nga déparé koñam réseau kon ñu ngi def kàddu waaw koy waay daal ginnaaw yàlla am na ñu ma tane ci Ndongo Lo parce que ñoom waaw ndeysaan gis ngeen kàddu yooyu Elzo témoignage nee na la jour bi kaar lay maye pour ku bëgg a dem yéeg ci dem ba rajo doo fay dara ñu wax ne le seen saaga dañoo ànd ñun ñëpp jàppale maam Cheikh Niang muy rakku Ndongo Lo moom mi nga xam ne lépp lu am si Ndongo Lo yóbbu na ko moom taxaw na pour àggale ko kon ni ngeen di jox dox daje le seen a yi fergandaay ki la kon fas yi yéen ñëpp ni leen àndandoo dox daje ravin naaj këlëb